Abdou Khadir ñu jeexalee ponk bu mujj bi mooy bu fekkee ni sa Seck candidat la ci atum 2024 euh, lan moo ci sa jàngat. Euh, sa sekk bu nekkee euh, deux mille vingt quatre bu nekkee candidat man gisuma benn chance boo xam ne sa Seck am na ko Idrissa Seck bu ñu waxante dëgg mooy wàllam wàllam dafa wëy Idrissa Seck wàllam wàllam wëy na même boo xoolee deux mille dix neuf bii sax. Euh, coalition bu baree bari nekkoon nañ ci ginnaaw sa sekk doon ko jàppale am na ñoo xamante ni lu mënutoon a ñàkk la waaye ba fa Idrissa Seck jógee dem ànd ji ak président Macky Sall ndax Idrissa Seck aussi nit ñi dañ ko dul comprendre. dem ak dikk gëm nekkoon ci Ablaye Wade nekk moom la nekkewaat presque ci Macky Sall ndax Macky Sall bi muy falu deux mille dix neuf deux mille deux mille douze moom Idrissa Idrissa Seck dafa dem ànd ji deuxième tour ak Macky Sall Macky Sall falu Idrissa jël ay nitam dugal leen ci gouvernement bi ba mu yàgg Idrissa Seck génn ñu ne déet waaye Idriss Seck dem ci élection jékki-jékki duggaat ci Macky Sall bëgg a génnaat loolu amaana Ablaye Wade daana ko def jamonoy Abdou Diouf waaye jamono ji ñu toll nii ak xale yi boo ko defee da ngay yàq sa carrière politique man pour man Idriss Seck wàllam wëy na te gisuma légitimité bi sa Seck am pour samp ndëndëm naan am na droit sañ samp ndëndëm mais soo xoolee élection locale nga ñàkk cees nga ñàkk fi nga xamante ni tey mooy élection locale ak élection législative jàpp na ne Idriss Seck fan lay koy teg pour mën a dem ci élection présidentielle deux mille euh, deux mille vingt quatre am ñoo xam ne mënuñu ñàkk maire Idrissa Seck jàpp naa loolu rawatina fi nga xam ne mooy Touba ndax deux mille dix neuf Touba ñu bari euh, dafa dañu jël lu leen neex ak lu leen naqari gunge sa Seck bi ñu ko gungee élection yi dem ñu bari jàppoo ne tey mën nañoo taaxeerlu juróomi at deux mille vingt quatre dina ñëw ñu àndaat ak Idriss Seck jox ko beneen change par Idriss Seck mel na lu wax wan askan wi na leen mbëllee dem ànd ji ak président Macky Sall ci anam boo xam ne tey Sénégal yu bari xamuñu lan moo leen ci leer te Idriss Seck leader yi nga xam ne tey ñoo ko waroon euh, di ay kàngam bokk ci partem boo xoolee presque ñëpp dem nañu sa Seck biir euh, réew mi amutul euh, benn animation boo xam ne am na si li nga xamante ni tey moom mooy euh, seen seen base politique bi maanaam structuration bi nga xam ne tey moo doon am ci euh, réew mi dëgg wala tey par exemple doo dégg sax ñu ne la ñii ñooy jeune réew mi parce que déggatoo leen euh, amatu deftuñ benn activité wala nga ne lii mooy femme réew mi déggatoo benn activité wala nga ne ñii ñooy cadre réew mi déggatoo ñu def benn activité ak Idrissa Seck aussi fan lay jëlee ay moyen pour def li nga xam ne mooy campagne waaye ban discours la Idrissa Seck di tenir ak kan la Idrissa Seck mën a convaincre Diakhaté waxoon na Idriss Seck est-ce que mën naa am parrainage mën naa am parrainage waaye pour bu demee ci élection gëmu ne Idriss Seck am na chance pour gagner élection présidentielle deux mille vingt quatre